asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki darsu bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal xaq di leen balu xaq di sàkku ci itam ngeen bal nu xaq bu baax a baax di jiital ci nuyoo yooyu ak ziyaar yooyu son excellence ñoo ngi nuyu di ko ziyaara di nuyu itam bàyyi darsu bi ak yaayi darsu bi directeur de programme mu jàtt lu ñu sunu nuyoo mboolem ku nekk ci majmuu bi rek ñoo ngi ko nuyu mu mel ni dañuy dellusiwaat ak Cheikhul Haaji Malik Si radiyallahu taala anhu fi nga xam ne fi la ñuy yemoon ak moom ci xilaatu zahab bi mi ngi tolloon nag ñun daal ci mbokkale gi nga xam ne mbokkale woon na ko diggante muhaajir ak ansaar ci gannaaw ba ñu gàddaayee ba am juróomi weer ca la gu rëy googa mu waxoon ñi itam ne mbooloo mu ci parti bu ci ne di muhaajir quarante cinq lañu ansaar 45 lañu Seydina Aboubacar mu boole ci ak kooku ñuy wax Xaarijatu bnu Zeyd alxasriji la ko boole woon ak Seydina Omar mu boole ko kooku ñuy wax Otbaan ibnu Zubayr xaw ma ibnu Malik Ubayd mu boole ko ak Saad bnu Muaas Abdurahman ibnu Awf mu boole ko ak bnu Rabia dégg nga Zubayr ibnu Awaam mu boole ko ak Salamat ibnu Salama kooku ñuy wax Abdullah ibn Mas'ud moom it euh, euh, mu boole kaag euh, nu mu tuddati waay rëcc kooku itam Ousmane ibnu Affan mu boole kaag Aws ibnu Saabit ibnu Mundir Talxatu ibnu Ubaydallah mu boole kaag Kaab ibnu Malik saad ibnu zeyd mu boole kaak ubay ibnu kaab musab ibnu umayr mu boole kaak abu ayuba abu xudayfa tabarakallahu mu boole kaak ubaad ibnu bisr noonu la ko toppee daal kenn ku ne ak kam la boole nga mbokkoo ak ñoom noonu tabarakallahu loolu noonu la léegi nag ba nga xamee ne ñëw nañ madinatul munawwara ba dal saxaabaam yooyu da ci am ñoo xam ne miinuñu climat bi changement de climat bi am nag tax na feebar jàpp leen fa ñu soj sibbiru virus bi dugg ba kenn ku ci nekk tabaarakallahu wit nga di bebbanti bebbanti gu métti métti métti métti ku demee ni Seydina Abubakar tabaarakallahu ndeysaan ba ka Aïcha see laaj ka naka nga def ak nu yaram wi def mu ne ko li xamal daal mooy kullu mrin musbihun fi ahlihi wal mawtu adna min shiraaki naalihi mu nekk li ma lay xamal mooy képp ko xëy xëyee si sa njaboot nga jàpp ne sa njaboot la gën a jege jàppal na dee moo la gën a jege sa waru dàll wii sa mbakkanu dàll wi le mu ne ko ah mu ne ko wax li Sina Abubakar moom la doon wax Bilaal itam bañu ko seetsee mu naan alaa layta shi'rii hal ubiitanna laylatan bi waadin wa xawli izqiruun isgarun wa jalilu ma ngoog loolu la doon wax moom aka neexoon daal mooy yëg ndax dinaa fanaanaati daal génn guddi ca màkk nga xam ne cepp yeek xeeti ñax yooyu ñoo mooy wër daal man daal aka neexoon ma xam loolu dinaa ko amaat wala du ma ko amaat mu naan xal moom bi daal mooy kon ne wax ne nan xale ari dan na yow man miyaaha majanna wa hal yabduwan lii saamatun wa tafiilu <laughs> ndeysaan moom it way yooyu la wax di ci méttilu li nga xam ne moo ko dal moom Bilaal loolu la doon wax waaye bu fekkee ku Amir ibnu Fuhayra da nga xam ne it moo nekkoon surga Seydina Abubakar ca yoon wa jàngoon nañu ko lu bëri moom ma ngaan inni wajadtul mawta qabla zawqihi innal jabbaana xatfuhu min fawqihi <laughs> kenn musul dégg lii kon ñoom daal caalit nañu caalit gu xaw a métti nee na wekk naa dee daal yëg naa dee daal avant ma koy mos xam naa ne buqat piir piir fu mu toll dee da koy tiim <laughs> tabaarakallaahu loolu daal la Cheikhul Haaj Malik bëgg a commencé ci way woowu ci wa mawlaaya sayidi siddiqi qad waika kahu wa qad kaanu fi baytin zawi hazami góor gi nee na wa sayidi ñaari mbay yàllay sama sang ba mooy Bilaal xam nga ko mooman mooy kan Seydina Abubakar moo ko moom ko baax a baax Bilaal ku ko moomoon Seydina Abubakar moo ko moom Amir ibnu Fuhayra ku ko mooman Seydina moo ko moom mooy sangam ma ngoog nee sama ñaari mbay yàllay sang boobu daal di ñaar ñooñu sëy sama sang siddiq nga ne ko waaw ñoom la de mu ne xat waxikaa sibburóof na leen mooy dañu sibburu dañu girib kahu mel ni seen njaatige ni mu sibburoo ñoom it noonu lañu sibburoo kahu comme seen njaatige ni mu ñoom it noonu lañu sibburoo gis nga wax xadd kaanu la woon waaye xam nga doyloo googu ñu doyloo damma gi tabaarakallaahu moo tax nga jëlee fi waaw mi ku ñëw xam ne fii waaw a fi nekkoon waxad kaanu la woon waaye dañu xasaf waaw gi ngir doyloo damma gi ku fi ñëw xam ne kat lii mbooloo lay junj ndax bu ñu doon mbooloo waxad kaana lay wax di te waxad kaanu la wax loolu nag dagan na dégg nga ko baax a baax nee na waxad nekkoon nañu ñoom ñett ñëpp di Seydina Abubakar ak ñaari surgaam yooyu fii baytin ci benn néeg zawi hasami ñi boromuk bebbant wax naa la kenn ku ci ne aïcha dafa dikk di la seet sayna abubakar tontu la mu tont te mooy kullu mrin musbihun fi ahlihi wal mawtu adna min shiraki naalihi mu laaj amir noo def mu ne ko inni wajadtu l mawta qabla zawqihi inna al jabbaana xatfuhu min fawqihi tabarakallahu kee mu laaj ko loo def mu ne alaa yaa layta sihri hal ubitan na laylatan dégg nga bi fakkin wa xawli iskarin wa jëlilu tabaarakallaahu noonu la ci way yooyu la mhm. léegi nag wastawqama at taybata algarra ummatuhu hawaauha lam yuwaafiq min misaajihi mi Seykul Haaj Maalik ne wastawqama sàkkoo naa mbaslu sàkkoo naa gaafal ummatuhu xeetam wax mooy ñi mu àndoon ak sàkkoon nañoo gaafal ak taybata madinatul munawara alxarra bay aji pell weextaru siiw ne sàkku nañ kaa gaafal ndax seen yaram climat bi miinagul ko moo tax mu ne hawa uha eere madinatul munawara lam yuwaafik dëppoogut ak mi misaaji himi ci seen climat ci seen yaram ak seen nangam nangam tax loolu dal dal ah, loolu yow mun naa dégg di yow bii bu seen nga tukki fii ñaan dangaa jaxase ñaari ndoxot dangaa def lii ak dangaa def laa ay yu ndaw ndawaan dugg la loolu kay wax dëgg yàlla euh, xamees na ko hmm? xamees na ko bis bu set nga gis ko kon loolu am na waaye ba loolu amee yonent bi dafa def ak ñaan ne yow yàlla daal yàlla nga leen soppaloo madinatul a comme ni leen soppaloo woon mu mukarram wala nu gën a garaaw sax nag far nakam loolu de yaakaar naa am na moom waaw waaw loolu leen yonent bi ñaar wa qaala xabib ilayna rabbi taybatana ka xubbi makkata ummi ruxmi wa raximi cheikhul haaj mali dina wa xaala wax na moom rasulullahi tàllal loxom yi jëm kaw na yow sunu boroom xabib yal na nga bëgguloo yal na nga soppaloo ilayna ci ñun ñi nga xam ne ñoo bàyyi koo makkatal mukarram ñëw na war rabbi yow sama borom loo ñuy soppaloo mu ne xanaa taybatanaa sunu madinatul munawwara gii ko xobbi màkkata kom nag ñu soppaloo woon màkk bëgguloon ñu ko ummi ruux nga xam ne mooy nday dëkk yi wa raximi dégg nga maam akuk jege ñaale kon ruuxum raxim moo nga bàyyi wàlla ko xel ba tey moom tamit amal waba min duaayil badri muntaqilun anil madina naxwal jufatil adami cheikhul duaa afan afan nee na amal wabaa ndaal mbas ma li feebar ba jafe-jafe yi fa nekkoon mbas moomu amoon ca madinatul munawwara muntaqilun aji dégaase wala aji toroxu la toroxlu la min duaa il badri bàyyi ko ci sababu ñaanu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi moo ñaan tabarakallahu mbas ma daal di toxalu min duaa il badri bàyyi ko na ci ñaanu yenent bi andil madina bàyyi ko madina munawwar naxwal jofa jëm jufa jofa al adami bay aji dëppoo léegi nag hmm, waaw bunt bi moom dana jeexam tey du jeexa ah. léegi nag yénent bi ba ba dal woo kooku ñuy wax zeyd xaarisa ko ku ñuy wax aba rafian daal leen di jox juróomi téeméer boole leen ak ñaari giléem ne sama njaboot gële nga xam ne maa ngi leen bàyyee ndi woon mu mukarram dama bëgg nag yéen ñaar ngeen dem ngeen jëlalil leen meen ñu ñëw ma moo tax mu ne naxaa aba rafiin zaydan bisa wariqan maa albairayni irsalan ila alxachami wow Cheikhul Haaj Malik nee na naxaa yónnee na rasulullahi ku mu si mu ne aba rafia kooku ñoo wax aba rafia zaydan ak zayd ibnul xaarisa jox na leen bisa ci juróomi téeméer wariqan ci xaalisu këyit mu jox leen juróomi téeméer naxaa la irsaalan ak yónnee ilal xasami yónni leen jëme leen ca njaboot ga ma al baa'iray ni ak ñaari giléem yoo xam ne ca la ñu war a teg njaboot ga pour ñu fekk si rasulullahi ca madinatul munawara nga nekk si njaboot ga ñan lañu mu ne wa ummu aymana jaa sawdatun fatimatun usamatun umma kal kulsumin in taqumi dangaa wax ne jaa ñoom ñaar ña ñu yónni woon di aba rafi ak Zayd indil nañu dikkal nañu umma ayman ummu ayman indil nañu rasulaay ummu ayman indil nañ ko sawda indil nañ ko fatima indil nañ ko usaama indil nañ ko umma kulsuum moo tax mu ne iin ràññat leen lii soo ko defee takku mi da nga maandu mhm. wala mokkalal lii soo ko defee takku mi maandu da jub mu ne nag amma ruqayatu maa osmaana zeynabu inda zawjiha bnu rabia gayru musalimi nee na xam nga ruqaya ci njabootu salaa sallam la bokk waaye booba dafa fekk mu ànd ak bërëm këram googu ñuy wax seydna osmaan nekk fale ci Éthiopie zeynab it mayoon nañ ko kooku ñuy wax Mi'zam ibnu rabia moom lañ ko mayoon mu nekk bërëm këram moom it kon du mën dem doonte jamono boobu sax ñu koy may nekkutoon jullit waaye boobu diggante jullit ak yéefar takkante xaraamagul loolu it foog nga bàyyi ko ci xel dana ñëw ci kanam sax incha allah góor gi leer laat ko foofa moo tax mu ne amaar ruqayatun laa ruqaya ma Ousmane àndoon ak Seyna Ousmane ca Éthiopie Zeynab Zeynab moom Zeynab bintu Rasoul moom it inda zawjiha mang ca bóoram këram googu ñuy wax ibnu Rabia mooy mi azam ibnu Rabia ma ngoog xayru nekkul aji wommatu mooy nekkul di jullit waaye gis nga ba mu dajee yonent bi moom gorom boobu di Mi'dar ibnu Rabia boobu ñu dajee ci xare ba <laughs> rasulullahi duma ko ba mu ko dumaa mu bokk ci ñeñuy jàpp nag otage indi ko nag ba ñuy laaj njot amul ci gàttalu xisa ndax xisa yu gudd la ba ñuy laaj njot amul benn njot bu mu joxe dafa bind leetar soxnaam si di Zeynab di doom ci Xadija ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sa bàyyi de mi ngi laaj njot ndax man nag seytaane mën na ba maa ngi takkoon xare pour jàkkaarloo moom yàlla dogal na not na ma ci xare ba jàpp na ma jaam léegi nag mi ngi laaj som pour kenn ku ne mu libéré la loo mu mën a dimbalee foofu pour ma liibarewu rek jàppu ci Zeynab ne ko ah man de yuruma fi dara keroog ba nga xamee ne guddi gañ may waral sama yaay càkk ba mu ma joxoon ceenu or ba mu ma joxoon ci misaal nga xam ne toujours dama ko koy fàttalikoo ceen googu de mi ngi fi. léegi nag dinaa la ko yónnee su ma la ko yónnee nga jox ko sama bàyyi ndax mu bàyyi la nga ñëwaat fii ci jàmm rasulullahi ba ceen nga ñëwee tabaarakallahu mu xool ko xelam dal ci xadija ak kóllëre gi nga xam ne moo doxoon digganteem ak xadija yépp yëpp kenn gi daal fàttaliku lu bëree bëri ci xeetu kóllëre daal tabaarakallaahu ca la ko bàyyee mu dem dana ñëwaat nag ci beneen mbir wakkaane nekkoon na moom moomu bi ibnu rabia moomu ma suuran nekk ku ñu jar nekk ku ñu jàpp bil badri ca xare badar waaye wa arsalaha yabal na soxnaam soosu di Zeynab gannaaw ba ñu ko baalee ba pare mu ñëw màkkatal mukarram daf ne Zeynab nag wax dëgg yàlla fi nekk nii moom ñu nekkandoor ñu ñaar ci màkka bokkandoor benn kër benn néeg mënatu ne léegi daal dama nga toog madina ba ba mbir mi leer daal moo tax mu ne waa arsalaha yabal na soxnaam sa ilal madinati jëmee ka madinati mun a war kañ si mu ne baadal man ni gannaaw ba mu ko tinoo wal karami ak tiraanga ji nga xam ne defal na ko ko ba pare ci la ka door di yabal foofule waaw foofu le bàyyil xel nag ne doomi tàntaam la woon mi Hasham ibnu Rabia boobu doomi tàntaam la woon doomi tàntaam la woon nag seen yaay bokkoon nga bàyyi ko xel bu baax a baax aywa nee na wa Zeynabun Zeynab baasat yónnee na xilaadatahaa caq ooram ba xakkan ci dëgg-dëgg fi mu nekk njot fi mu nekk njot wa man na baal na tin na abu abuha baayam lu tax mu baal ko si mu ne shiddata raxami ngir taruk cofeel ak yërmaande koo xam ne am na ko ci digganteem ak Zeynab ak Xadija mi nga xam ne mooy yaayam pare na foofu léegi mu des waa kër Seydina Abubakar ndax lijjanti waa kër Yonent bi ah waaw moom de ma ko bind bi de tey de goor nañ ba bunt bi jeex ah, lii de li gaa ko goloo ci dee yaakaaruma ko woon suuruma ko woon sax nag wax dëgg yàlla amal atiqu fa abdullahi jaa lahu iyaaluhu wala iyaalahu ummahu asma bir rasami nee na amal ndaal sayna abubakar saddiq fa abdullahi abdullahi da ko baax jaa indil na ko mooy abdullahi da abubakar mooy doomam ci boppam la bëgg na lahu ñël sayna abubakar iyaalahu njabootam googu indil na ko ummahu yaayam yaay Seydina Abubakar te mooy Salma bint Saxr noonu la yaay ji tuddoon ñu ko daan dàkkantele umul xayr comme ni nga gis ñu ngi dàkkantele fi jigéen ñi umul xayr kenn musul di nga ko indil na ko it Asma bintu Abubakar bi rasmi ñuy dox dox bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw wa ummu rawmaana ak ummu rawmaan indil na ko ko ummu rawmaan mooy kan mu ne ani ki mu namm ci ummu rawmaan umma Aïcha mooy yaay Aïcha it indil na ko ko wa aïcha ak aïcha ci boppam maa abdullah ak ànd ak abdullah moomu nga xam ne moo leen jëli woon zil qadami zil qiyami kay borom daraja tabarakallahu loolu daal noonu la ma ngoog hmm, kay borom mu njub kon zil qiyami kay borom mu njub euh, tabarakallahu dafa ne buntu ba jeex na kat <laughs> ñoo ngi jégalu tabarakallahu xam naa ne gudd na waaye ñoo ngi jégalu Eh, di jégalu bu baax a baax di asalaamaaleykum wa wa barakaatu.